yi sama rakk yëpp da di leen baal àq si waxtu bi parce que dafa fekkoon tey dañu amoon ay gan yu ñu nekkoon foofu dañu seet si euh, lii nag comme noo nga xamee toujours li may faral di wax ñun duñu wax di waxat yëpp lu ñu seeg ay lii nag lii avancement rek la début la début la rek mais lii ñëw mooy daax lii ñëw tey comme noonu la nga xamee rek ñun maanaam dañu politique politique di jàppale son excellence le président Macky Sall ni ngi koy jappal ci wàllu développement wax na sax ni année année 2018 mo année de social ñun toujours ni ngi si wàllu social avant di dugg ci politique bi sax ngeen def ci wal social man mu ngeen ma cédé li ñu def ni nak début rek la parce que man wax naa c'était mal ici fi la màggee fi la xam fi nañ ma défé lu nekk mënu ma nak lu di def di len sante digam beneen bi aussi tamit même léegi rek maa waxtaan léegi waa Cité Cité Malsi bi dem naa dama leen bëggoon bett sax dem naa ba woo leen mais fekk dañu tasaaroo ma ne leen incha allah rabbi euh, fan yii naa leen utal ay naa leen jox seen maayo bi ma ñëw sax dama indaale ay crampon ay ay ay ñu ma may ma dem ko bëgg a préparé waat bi ma ñëw jox leen ko waaw. bu ma nekk ñun politique bi ñu def politique bu sincère la du politique ndax naxaati ñi ngi def leen nga xam ne dañu bëgg au moins Cees yëpp gis seen bopp. si loolu aussi yow ñaax la président public ni nekkoon na bàyyi xel président nag mu ngi bàyyi xel bu baax Thiès li lu si des nag mooy ñii nga xam ne ñoom la jox ñoom la jox euh, vraiment ay responsabilité biir Thiès ñoo war a gën a góorgóorlu jàppale Thiès parce que comme nga xamee ñun ni ngi def lu nekk si wàllu euh, développement si wàllu santé si wàllu euh, si wàllu santé bi si wàllu éducation bi incha allah duñ fi yem rek li ngi feex xeex aussi lu nekk tamit xale yi xamna ne tamit am nañ seen diplôme ñi nga xamna jaar nañ ba pare amuñu métier tam dañuy fexe inshallah rabbi lu leen jàppale ni am fenn fuñu jàpp ñun nak duñu digaté président Macky Sall ñu jàppale son excellence ñi ngi ci ginnaw comme non la mé rek ñu luñ mu di leen remercier rek da inshallah li ñu def nii nak du fi yam nak dinañ ñoon encore sesili ak leen lu xamné lu dakhali tamit vraiment tamit jërëjëf Aïssa merci bien doy sax teranga bi nak suñu xolo fess ba kenn wax ji sax da doo ko mën ñi ngi kontaan lool lool lool di wax euh, sëñ abib ñi ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xamante moo ni ñaan leen addoowu nii wa astabdilukum ñaan leen ma may leen kon ñoo ngi ñaan ci suñu borom li ñu sumb yàlla na ci yàlla teg loxoom fi ñu bëgg àgg yàlla nañ fa àgg li ñuy séentu tamit yàlla nañ ko yàlla yombalal yàlla bu ñu am leen lu ñu ragal suñu yoon wi ñu ngi kontaan kontaan goo xam ne am na fu mu tàmbalee amul fu mu yem lii nag ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla def mu nekk leneen ak leneen ak leneen suñu kanam dañu jariñoo ko ñun ñëpp man nag fu may daanelee rek li ma for ci mbedd mi la waaye xëy na ci kanam tuuti xëy na daañu ci gën a am lu leer damaa dégg ni ne carte yi daañu bindu mois de mars bi di ñëw ñu ne daal loolu daañu ko mais su fekkee loolu am na it incha allah danañ ko gën a leeral pour li ñuy fàttali ñi nga xamante ni jotuñu woon bindu ñu teel a jóg kon bu fekkee loolu am na ñu teel a jóg dem bindu ju pour préparer wu ñi xam ne seen doom yi majeur nañ am nañ 18 ans ñoom tamit ñu soññi leen ñu dem bindu ju ndax élection ñu koy wax carte moo tax kon ku ci am nga garder sa carte ñi nga xam ne jotaguñoo bindu bu fekkee loolu am na bu ñu tijji ko nañu dem bindu seen doom yi ku ci am 18 ans tamit ñu wax leen ñu dem bindu ju kon ñoo ngi gërëm ñëpp di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. di beral nuyoo suñu bii di Habib Niang di gërëm di nuyu tamit euh, délégation bii ñu àndal ñu lay gërëm yow Habib Niang ñun buñ la dee gërëm sa defe naa ni duñ fi jóge parce que lu baax li ngay def ci dëkk bi yëpp vraiment ku ci nekk teg nga ci sa bët ñu ngi lay ñaanal lii nga sumb yaa xam fu mu bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggal yal na nga ci euh, séntu lu raw sa njortu mënuma wax nag mais mënuñoo ñàkk ba a wax ndax lii dafa rëy politicien bu ne jaar nañ fi mais vraiment acte bi mësuñu ko fee am kon nag kuy wax rek da ngay wax te yàlla rek moo tax gërëm nañ la sant nañ la man mi nga xamante ni maa yor carte de membre yi doyewul yàlla xam na ni dama jaay ba am na ñoo xamante ni dama encaissé seen xaalis sax pour ñoom dañuy ñàkk ma ni leen du ngeen ñàkk président mi ngi ci carte de membre yi ñu ma joxoon moom moo jeex mais incha allah rabbi bu ñëwee ba président signé ko rek yéen ñëpp di ngeen am instant bi dama encaissé xaalis def note sax pour ku ci ñëw bu ñëwee jox ma sa carte d'identité ma relevé jox la kon lépp ci cité Malick Sy bii laa ko jaayee génnuma koñ bi lépp lépp fii laa ko jaayee kon carte de membre yooyu ma leen di ñaan yéen ñëpp ku ci soxla na nga ñëw nga yónni sa doom jox ko 200 francs ak sa carte d'identité ma relevé ko yéen ñëpp jox leen parce que carte de membre booy xool comme carte d'identité te mënoo bokk ci mouvement nga damay ànd suqali ci Thiès ak Abibña te amoo carte de membre loolu amul benn importance kon ma leen di ñaan yéen ñoo xamante ni jotugu leen am ngeen yónni seen doom yi jox ko ñeen fukki dërëm donc ak euh, seen carte d'identité ma relever jox leen seen carte de membre. robinet bi nga fottar ñi xale yi doon ñaani ji ndox woon ni yëg naa ko xale yi di ñaani ji ndox di ñaan si ndox na leen yéen ana seen robinet ñu ne ñun dañ ñoo coupé nga ne ana seen directeur ñu ne ma nga dema leen woon ma seen directeur dégg na directeur ba ñew ni leen dañu am facture bu ser ñu blog yépp teg moo tax dugg ci kër yi di ñaan misel gi cité mbay jey dégg na nga laaj facture ba dem defar bi robinet ba mu mel ni euh, bi na ñay ubi ma ngay baawaan xalé yi naan mag ñay naan yal na la yalla défar ji ya xam la nga bëgg yalla na la ko yalla défar kooku moom waxoo ma fekkewu mako mais dégg na ko plus leneen ak leneen nit nee na kii ibaadu la xajul ciy fen lu mu xam lay wax lu mu man lay def du mbalañ kenn nit a ma ko wax de yow waxoo ma ko wóor na Nabil Moustapha nit a ñëw ba sama kër wax ma loolu te yow waxoo ma te góor la ni yow billaahi wallaahi nee na li nga xam ngay def li nga man ngay def euh, propagande woo defoo nen kon man waxoo ma ko nit a ma ko wax si te bu ko boo ko defloon du ko wax day ñëw ni ma xuus ni ma dimbale ñu kii day wax rek bu yàggee ju kii ñun dañu sonn dañu sonn man jaay naa fonde jaay gerte caaf laay jaay fi ñu toll. cin gi dinaa ko abbu taal ci fonde jaay ko waa sànce di la ñaanal sama doom yaa ngi fi ñii xëy ñi ci desan ngi ci kër gi jàng si te na ba bàyyi kayit yaa ngi ne ñu teg man leen boo yëgoon du ma la soññu ngay jàngi. mune yaay ndax lan daas fanaanal rek bis bu yalla ñewé mu baax man moma magana gëm yalla bo xam Mana yaay garawul dina baax kañ dem jënd jangi cité yoro say métier ko koo romb bu la ci pat lo ne xamul muy mbandal mara nga fi mune ma yaay du lolu do mëna dugg ci bureau jàmbur di liggéey te jëluñu la nañu xaar yalla kon yalla na yalla ñew ñang ñu ngi sa ginnaw di la ñaanal xalé yi kat nenañu contant nañu ku waxul li kat ku ci gis contant ñun dañ fay uh, natam ben mbana bu ne Xadi Njaay ma yoroon kii ba ak Maguette Njaay dinañ jox juróomi junni xaw ma juróom benn junni benn mbana ñu di ko def di ko def ba camp bi daj ñii jël nañu ñii jël dañooy jël seen xaalis man na bii naa ci jël togg ci fonde jaay ci chantier bi na la yàlla yokk